voilà mbokk yi ba léegi ñu ngi ci euh, wër bi ñuy wër di xool tolluwaayu waajtaayu tabaski gi ginnaaw bu ñu jógee nag ci xar yi gis ngeen vidéo yi nga xam ne jot nañ ko euh, leen ko jox ci suba si euh, xam naa ñu ngi kon ci ñi nga xam ne ñoom it ku wax tabaski da wax solo ak sumeeku fii nag ay yu ñuy ñaw ba pare la mbokk yi fi nekk ay soxna ak waa ji ngeen di jàkkaarloo sëñ bi luy Modou yaa ngi fii di jaay ay yére

yu am na waaye nag yu a dox. ndax mën nga ñu ci woon ñaari modèle rek ñu xool. waaw mën nañ la cee woon ñaari modèle. yéen ñu xool. waaw micro bi ne jege sa gémmiñ. bi bi bii nii bii nii maam ñaata ñaata la war a jar. dañ koy jaayee 5000. 5000. waaw dañ waaye ñun client yi bu ñu ñëwee. 1000F ensemble la. ensemble bu bëgg jubee. 1000F lan lay fay wala ñetti téeméer. bi lan la. ci góorgóorlu ba góorgóorlu 2000 la tiisi bi lan la.

lu kon daal yéen a ngi fi ba ban heure fi mu ne nii. mais mais njartali moom mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi dox bu baax. mu ngi jar bu baax. baax waaw. baax na fàttali ñu wi. garage Dakar di jaay ay components yu góor ak yu jigéen lépp am na macha allah. jaajëf di nuyu nag sama yaay yi ma toogal nga xam ne ñoom ay waaye semaine bi yëpp ñi ngi jaay gis nga seen doom yi ñoom ñëpp ñi ngi nii ñuul kub moo tax président Diomaye nag gees suñu yaay ji te dimbale nga xam ne nii nag yëg na nag wàññite ceeb bi ak diwlin bi ak suukar bi lu mu gën a wàññeeku gën a baax xar yomb na xar bëri na Diomaye yàlla na fi yàgg déwén moo président Ousmane Sonko jërëjëf soxna si tur wi ak sant wi. ah man Khady Thiam laa tudd. foo dëkk. maa ngi dëkk Daara Khoudoss marché Mame Diarra. Mhm. yaa ngi fii di jaay lan. maa ngi fii di jaay samay complets xale. Mhm. yu góor ak yu jigéen. Mhm. waaw fan yii ba naa ne 10 jours yi di jeesu yëpp yendu ma sama kër fanaanu ma fa. maa nga fa di yendu ci àll ci luuma yi. fanaan ci trottoir yi yi. fu ne nekk maa nga fay nekk ngir yàlla a tedd njaboot. Euh, njënd mi ak njaay mi fan la toll. njënd mi ak njaay mi moom demeewul noonu parce que client yi fayu yi bëri. Hmm. ngay gis client nga xamante ne bii valeur bu 5000 nga ko war a jaay. Hmm. mun naa la ndax 2000 baax na wala 1500 baax na. Hmm. xam nga loolu prix amu ci. nga dépassé sa xaalis ci say bagage ba pare dafay ñu le prix xam nga loolu métti waaye da nga ak ñoom la naxante ak ñoom ba jaay leen rek. yéen euh, li ngeen di jaay fan ngeen koy jële ñun dañuy jël dañuy jël ci bailleur yi rek ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ñooy ñaw ñaw dañuy ñaw jox daal di ñu koy joxe ay xaalis bu ko defee joxe ñu ko ay. dañ leen di ràng wala da ngeen di jënd kaas kaas. dinañ ñu ràng dinañ ñawal suñu bopp dinañ jënd suñu ñawal suñu bopp waaye nag boo ñawalee sa bopp fay say tailleur boo ko divisé léegi la piis bi dim da daal di xam ne la benn complet bu ne ñëw. yow yére jigéen ngay jaay wala yu góor. man dinaa jaay yére jigéen dinaa jaay yére góor. yu mag wala yu xale yu mag ak yu ndaw yëpp laay jaay. Hmm. waaw man daal fi ne

may sant sama borom kër nak ndax moo moma baye ba ma mën genn bay jaay suma ma won ci ca kër gaar du ko man luma ci am rek ma ko koy sant waaw fàttali ñu tur man Khady jam la tudd maa sama am jaar jere jam sëñ bi salam alaykum tur wi nakala la Modou Ñang Modou Ñang bëgg ceeb euh yaangi fi lu lay mi sey tank waaw ah. Daaru Musti. Euh, yan yére ngay jënd fii. ay yére xale ay asamoon ak ay yére wolof. ñu ñëw ba pare. ñëw pare waaw. njëg yi fu mu toll mbaa seer na wala seerul. waaw waaw seer na seer na seerul rek. Mhm. seer na seerul daal. seer na seerul mooy lan. mooy mooy mooy seer na rek. Mhm. waaw seer na rek. seer na daal. waaw seer na daal yow yi ngay waxaale noonu ñaata lañ la wax. waaw yi de ñu ngi wax ay 3500 ay 4000. ndax mën nañ ko gis. ah ndax mën nañoo gis li ngay wax. waaw mën nañ gis kay. waaw. parce que yére bi. waaw damay yére bi. waaw ñu wax la ci ñaata. ay 3500 3500. waaw yu xale la dafa mel ni. waaw boobu ñaata. 1500 1500. 1500 macha allah. mais baax na de daa mel ni. waaw <laughs> lan ngay wax ci kon ji euh, xeeti yére yi nga xam ne ñu ngi koy jaayaat. waaw baax na daal macha allah macha allah. Hmm. waaw baax na waaw bu baax moom. jërëjëf waaw baax na ko dëgg yàlla. jërëjëf waaw bi tur bi naka la. Hmm? nan waaj. ki ne waaj. looy jaay fii. Eh hmm. euh, njënd mi fan la toll. yéen lu ngeen di jaayee. ndax ma naa gis li ngeen di jaay lan la ban xeetu yére la. génneel ma xool woon ñu ko. ah yi ngeen di jaay ñaata. lii de daa ni yére xale yu ndaw a ndaw la sax. moom moom ngeen koy jaayee yéen. Mhm. bu dee robu xale yu jigéen ñi nag. ñun ñëw ba pare moom ndax client yi ñu ngi ñëw bu kon daal waxu leen dara seen bamba maase na. ñaata ñaata at ngeen di yëngu ci lii. ndax dafa am ay banque yu leen di lebal wala yu mel noonu. yéen daal seen amamu bopp ngeen di ngeen di yëngu. baax na fàttali ñu tur bi fàttali ñu tur bi kii ne jërëjëf ba tey ñu ngi ci daaru manaan ci gaaru ceer bu njëkk bi soxna si tur wi nday nday cun nday yow looy jaay fii yëfu xale maanaam Nah li ñuy gis nii mel ni moom de yow yaa ngi raaxaloo ci jaaykat yi tabaski yi. waaw lii moom lu mu doon ci tabaski. moom xam nga ndax ci gan yi ñëw moom. ndax boo doyoo ñoom bu bees am daal yu bees. nga cee boole yu baax baax yi daal. lii moom lii kii. cristal la tudd. cristal waaw beneen bi ci topp. beneen laal ko benn bu ne laal ko. teel jeeg ya lii mooy kii cristal la tudd moom ah. beneen bii nag. moom it ñoom la tudd. cristal la tudd même tur la. waaw moom lu leen wutale. rëy gi wala. li ji gi ak sew gi. kii jànq ji kii jeeg gi. ci wàllu qualité. am na ci ndax euh, lu leen wutale. non ñoo yem rek. waaw ah, kay bii ko moom bii man. loolu a seer boobu moo gën a seet. waaw mooy mooy Tak mag ñi waaw. waaw ndax gerte li Mana mu demee. waaw ñu ngi dox ndànk-ndànk rek. ñu ngi koy jënd bu baax a baax. maanaam bu ñu xoolee période bi ñu toll nii nga xam ne ñu ngi waajal xar ak soble pomme de terre donc lu ko ci dugal wa li ko xalé ko mo nga xam nga xalé ko solo nga beer daal di bees xaw takk lu bees ko gan wa waaw ko gan dalal leen da xam nga rek yow lii yaa ci depuis ñaataat hmm? baxna kon fàttali ñu turu wi awa cuun nday cuun jërëjëf nday merci turu wi naka la ak fo joge ndam ndaam lu don say tank fi ci eh, garu tier bu Dakar waajtaayu tabaski lañu nek nekk mu defar nga ba ma sha allah ba am nga ci gan ni wa wa am nga ci gan ñi loo doon jënd fi man nañ ko xam nga doon jëndal xale yi ay jaaroo xale ndax njaay mi li ñuy teew di jënd seer na na wala waaw soxna yi dañuy faral di di leen xaw a da ngeen a mën yenu bés loolu mbaa yéen ci jéem a soppeeku tuuti waaw waaw waaw loolu suñu la de li nga li nga soxla woon daal am nga ko. pour tabaski bi allah. pour tabaski wala pour gan tabaski lan ngay dénk mbokk yi nga xam seen mbokk soxna yi nga xam yenu bi am def ci loo am rek def loo am rek ndax tamit ngay di ci sonn nag di lépp ko ci def ak yooyu xam nga bu jàllee ngay tamit def li nga am rek Marème Sall jërëjëf